nekk groupe nekk majoritaire assemblée nationale rek te gis nañ ne ñun élection yu am Sénégal bu élection yi jaaree yoon rek ñun ñoo koy gañe ndax am réew bu ñu koy wax ndaw ñaa te ndawi Sénégal yi président Sonko lañ jox baat ndax ku ñu wax sociaux la ku ñu wax candidat xam ne ñi koy faral amuñ carte d'identité mu génn ci élection yi ak résultat yi mu ci génn président Sonko du président Sonko gox président Sonko national la te gis nañ ne mooy seul candidat bi nga xam résultat yi bi mu génnee ñoom ñëpp dañoo tiit depuis boobu ba léegi ñu mën a négocier moom la ñu bëgg mais que président Sonko du kuy négocier avenir réew mi moom Sénégal la jël jiital Sénégalais yi président Sonko moom ku sa ku liggéeyut wala nga rep rek yaa ko jéem a wolo ci yoon ndax boo ko wolo ci yoon doo ci génn ndax nit ku set wécc la waaw li li baaraan di tooñe rek naan boote wuñ ko xaw ma lan président Sonko sa rabal yu mat sëkk lañ ko boote mu am gannaaw teg gannaaw mooy jub ragal yàlla ndax sëñ Tuubaa doon doon da ngaa yilif ba yilif àdduna la ci biiram te ak ragal yàlla néewul ci yow amoo xam-xam président Sonko dafa ragal yàlla moo tax fu mu doon liggéey parcours ba mu fa def mu def ko